yàlla naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax ci la boo xamante ni ñi ko bëggoon bari na mais xëy na wërsëgu jàmbaar la ñaan yàlla rek dugg ko ci bismillahi rahmaani rahim ah jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin loolu ñaan yàlla ñaari mbër yëpp wax dëgg yàlla def nañu waroon def yëpp mooy euh, jafeluñu affaire bi bi demee yàgg na mais jafewul mais bi demee ba nga xam ne jëleen décision pour mu taxaw tamit ñoom ñaar ñëpp ku nekk jàpp na ci mu naayees mu taxaw macha allah. ñoom ñaar combat bi taxawal ko metti na walla méttiwul. non non méttiwul méttiwul méttiwul méttiwul. non non nañ ko naaj ñaari mbër yëpp ay gentleman lañ wax dëgg yàlla. ñu leen di jaajëfal jaajëf seen staff yëpp aussi quoi jàpp nañ ci affaire bi naaj ko waaw combat bi taxawal ko est-ce que yomb na parce que ñu bëree bëree bëri nee nañu xaalis bu bëree bëree bëri moo mën a tëgg Siteu ak la de Guiers yow selon ko oh. jàmbaar production li ngeen génnee ci ay moyens. waa xaalis bi bari na quoi mais bon aspect aspect sportif moom bul wax boo bul wax boo xoolee xaalis rek doo def dara ndax sport dafa cher sport dafa metti ni mbër mi wala athlète bi yaa xam ne nel athlète bi rek lu mu am ci sport rek mérité na ko ndax athlète euh, sport ñi ci ñi ci ñi ciy am ñu néew lañu néew ñoo ci am mais ñi si dul euh, ñi si dul ñi si échec dafa bari moo tax ku ci am rek nan ko nan ko ko yéenee nan ko ñaal quoi amna solo papa ñu wax ba yeggal parce que dégg nañ lu li wolof naan lu def du waxul lu ay di njambat barki dem li nga xamante jot na xew ci réew mi ñu dégg ci turu papa saw te ñu bare bare ku gis papa saw xam ko ci mbax xam ko ci yaru xam ko ci calme nga dégg loolu bi nga ko déggee yan kaddu nga ci mën a leeral ñi nga xamante say soppe lañ bëgg la waaw d'abord man damay jaajëfal rek ndax man Sénégal fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii leen ma xamee képp ku ma xam tamit ci lu baax rek nga ma xam waaw képp ku ma xam ci képp ku ma xam ci lu baax rek nga ma xamee ci lu baax laay dox ci lu baax laay wax wallaay ci lu baax laay dox ci lu baax laay wax. moo tax man comme ni nga koy déggee rek laay dégg Papa Sow dem na fële Papa Sow nii nervi nangam nangam ni nga koy déggee laay dégg. dem na jamono yaay léegi ay nervi. <laughs> yi dañoo. première fois ñu dégg ko ci mbër Gris Bordeaux jiiñoon nañ ko lu mel noonu tey ñu jiiñaat. waay man li ma wax rek mooy ñu ñëwaat ci politique euh, politique sénégalo sénégalais. sunu politique fi amoon depuis Senghor ba fii mooy ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. kii ku neex faral fii kii faral fële mais mu nice rek na nekk affaire bu rafet affaire bu nice man su ma duggee ci politique man patriote laa comme ñëpp su ma duggee ci politique man taxuma man tey jii su ma neexoon dem fee dem ne li jënd sama bopp mais su may su may dugg ci politique pour jàppale samay raq ay raq ñu tax naka la ñuy amee liggéey naka la leen financé naka naka naka naka mais ku fekk ñaan la Papa Sow nangam Papa Sow nangam daf may jàpparee sax man dama mujj ree dama lu ma ci wax li nga ma ci li nga ma ci laaj ñi sax nekkul lu ma gënal tax moo tax mun ma ci toon tontu bi ci war daf may jàpp ay ree quoi Papa Sow baal naa leen ci xol xol bu sedd ko baal naa leen ci xol bu sedd ko waaye xam naa ne fi may xaar moom dina ma xaar fii ba deux mille quatre-vingt dun ma si gis incha allah du ma ci gis non non non ma ci gis déedéet man maa mag loolu maa ay xaw ma ay nervis yooyu maa mag loolu man su ma demee bay taxaw autorité yi dinaa wax loo xamante ne mooy jëmale réew mi kanam ñoom lu ñu fu ñu dul egg seen tànk fu ñu egg seen ak lu ñu dégg seen nopp seen bët man su ma gisee su ma toog ak ñoom loolu laa wax dem leen fële manqué na lee dem leen fee manqué na lee dem leen fee manqué na lee dem leen fee manqué na su ma def <laughs> su ma leen bay def man si position bu laay defee mais nekku may def ay nangam nan xeex fii nañu taal fee nan def non non neexuma neexuma ci loolu man man mais bëri dama ko rafetal ba bàyyi bëri du ma ñëw ba heure di ko salteel non du ma ko salteel mukk jamais jamais gis naa ne gis naa ay montage ak ay Papa Sow duñ ko la nu mu duñ koy waxee sax dañ ko jël comme xam na ministère nu mu tudd chargé mission dégg naa <laughs> rek. mbokk yi hmm? ñëpp àdduna bi yëpp àdduna yëpp ku na ma fu ne. àdduna yëpp continent yëpp fu ma am mbokk rek ak ay nit ma li ñuy dégg li ñuy dégg li ñuy dégg li dégg ma leen ku na nga nelaw li ngeen dégg dañ koy dégg rek waaye du yàgg ba ngeen teg ci seen bët incha allahu rabbi jaajëf jaajëf macha allah am na solo mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Papa Sow wax waaye dañuy jub jublu léegi ci waxtaan wi ndax suñu papa Mouhamed Ali mu ngi fi moom mi nga xamante ne mooy ménageur Lac de Guiers numéro 2 euh, Thier baal ma rek jottali ma beneen micro boobu ci ginnaaw maa lay siyaar sëñ Babacar <laughs> waaw gis ngeen mbokk yi gis ngeen noonu la demee léegi hmm, kilifa gi ah ah, ah? waaw léegi mu nekk loo xamante ne vraiment lu am solo la Fadel ndaysan mu nek lo xamante vraiment lu rew mi ñep doon xaar la mu dox ci diggante Siteu ak euh Lac de guerre 2 Mansour mu ngi nonu mom moy njital jambar production mbokk ñu ngi direct nak ngeen bàyyi xel bu baaxa baaxa baax a yi